mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ah, bëggoon na rekk ñëw ci kàddu yu néew ginnaaw bi ñi ma jiitu daanaka wax nañ la ci ëpp solo waaye xëy na dañuy ah, fàttali konte rekk balaa may ñëw ci procès wu suba bi ak ah, li nga xam ne mooy tey état d'esprit président Ousmane Sonko ak yóbbante bi mu am ci ñun bëggoon naa sox tuuti rek samay kàddu ci liñ fi wax ci wàllum scandale yeeg yu ni mel waaye damay commencer ci scandale bi nga xam ne dañ koo yee mu retourner contre ñoom mooy bi waral soxna may mun a euh, def euh, musóoram bu jekk bi maanaam gis ngeen ab député bàyyeekoo Touba. c'est extrêmement important dem ba assemblée ci perchoir bi ñëpp xam ne foofu député yi nag moom ay buur lañ ils sont protégés mu sañ faa yëkkati kàddu yoo xam ni ku am dégg-dégg xam ne bunt bu mu doon ubbi la am ñu ko doon yeggali te ña ko doon yeggali ñu président Ousmane Sonko tuubaa lañ tuumaal loolu mooy dëgg xam ngeen lu tax parce que dafa wax ni moom am nay firnde ne président Ousmane Sonko am na ay koppar yu jugee Qatar ñëw ci moom am ku ni woote na téléphone vérifier sax ba xam montant bi ñaata la laataa loolu am na keneen ku ko jiitu ndax ñoom ñaar yam mais fu ñu génnee rek xel day dal mooy ñaar ñoo xam ne fu ñu génnee rek bu la neexee mayal sabar xam ne am nga ndam ci li ngay xeex donc bi loolu amee kii nga xam ne nag moo dugal Touba mooy journaliste bi toog nii woote na vérifié na ne vingt million de dollars la maanaam lu jege douze milliards teg ci ne Canard enchaîné mi ko wax man dama jàpp ne France ñooy xeex Sénégal di xeex Touba jaarale ko ci loolu lu tax ndax bu ñu demee ba naan islam local parce que nag pays àdduna bi dañu ñee ci Sénégal ni ñu ko mooñee ñu ko mag ñu baax ñi liggéeyee ba nga xam ne xeetu lislaam bi fi am ak tolerance bi ak dëkkandoo bu rafet bi ñu am ak ñëpp ku fu nekk jaar nañ fa ngir bëtt suñuy frontière ngir jéem ñoo jaxase ngir jéem a tas réew mi mënul sotti ñu ñuy jéem a maintenant diviser di attaquer parce que ñëpp ñoom xam nañu ne Touba duñu ko gañe duñu ko mës a gañe ba tax na teg ci tamit modelu murit dafa wone ne mën nañu affranchir ci maanaam ñoo ñooñu nga xam ne ñooy fi nekk di buur di bumi mel ni suñu ay mel ni ñoo moom réew mi mii waa France ndax économie sociale et solidaire Touba model la ci bu ñu walbatikoo ne dañoo jox xaalis waa Touba ñoom ñoo ko wax ba tey du samay wax maanaam Euh, kii di député boobu sant Diop Matar Diop mu gàtt mi lañ koy wooyee xaw ma ak kooku ñuy wax Cheikh Yérim Seck ak ma jambal ñoom ñoo ko wax ni koppar yi li Canard enchaîné wax mooy dafa dañ ko dugal ci ñooñ Touba ngir ñu jàppale président Ousmane Sonko donc maanaam ñoom nangu nañ ne koppar yi ñëwul ci président Ousmane Sonko waaye ña ngay tuumaal ne koppar yooyu waa Touba lañ ko yaakaar naa ne euh, mbéjum kanam borom a koy fajal boppam te xam naa ne waa danañ ca def lañ ca war a def. loolu c'était important ñu préciser ko waaye ba ñu jógee sa caaxaan yooye balaa ñu cey balaa ñu cey pare sax mbir xew ñaari mbir bi ci njëkk mooy le candidat de la continuité ngeen koy wax mhm. loolu rafet na c'est le candidat de la servitude volontaire ndax kii li ñu doon jooy ci Macky Sall la nguuram lu ko raw la ñu yéene te dafa commencé nag te dara xewagul ndax man mag Sall nekk na fi 12 ans waaye wax dëgg yàlla déggaguma ko ci voyage boo xam ne ànd naag autant de personnes luyee leen ci hôtel de luxe ñi bàmbulaa ci xaalisu Sénégal au moment où ñu ni tension de trésorerie dafa am ci réew mi maanaam mbir mi dafa seere koppar amul nga buub say ministre say jegeñaale ñi lay jàppale dem euh, euh, jël ci hôtel yi gën a luxe nekk fa dama bëgg journalistes yi aussi ñu def ay recherche am na ay ay ay ay ay ay ay ay chaîne yoo xam ne def nañ ci ay recherche mais c'est bon yomb na nga dem tàppe ñu ne la hôtel bi mu ngi tudd Prince de Galles nga xool foofu nuitée ñaata la ainsi de suite nga def sa calcul tu verras que des des milliers d'euros ont été dépensés ci xaalisu Sénégal parce que ba ñuy dem dañ doon mbubboo ne liggéeyu gouvernement la déedéet meeting ngeen fa gis ak saraxe Sénégal maanaam ay contrat yow foloo sax ñu dem di jébbalu ji di wane ne moom mooy candidat France moom moo mën a assurer France ay intérêt mais booba la France jum ndax booy far sax da far ci cheval gagnant maanaam ci kii gagné koo xam ne ñi ànd ak moom sax xam na ne du gagné. loolu nag li muy firndeel mooy ah sénégalais yi bu ñu bañee dund lu piir li nekk di dund di ko jooy nañu fexe ba Amadou moom bu mu jegg sax bu mu jël sax troisième ça c'est parce que moom mooy meilleure réponse à la France bi nga xam ne dafa bëgg a wéy di ñu noot te xam na ne mënul nekk te xam na ne à la kulli xaal 2024 mënul fexe ba imposer ñu ki ñuy jiite moo tax may ñaan suñu député yi ñu ñu ñu def question orale wala demander commission d'enquête ci voyage u Amadou Ba bi ak xaalis bi fan la jaar ak naka la naka la fan la ko jëlee ak lan la ci doon def c'est c'est très très très très important ci euh, mbirum euh, Bamboula boobu nga xam ne moom la nekkee woon ca France ah leneen li ci topp mooy li mu Moussa Diop wax yaakaar naa ñëpp wax nañ ci ba mu ko waxee nag nee naa xam naa ne euh, euh, jamaa moom ak ni mu chéré gars yi dañuy daal di fàtte vingt millions de dollars yi ci saa si waaye li ci ëpp solo mooy askan wi lott nañ toqi nañ tàyyi nañu ci scandale yu tegaloo yi ndax dégg nañu ne procureur autosaisiru na dégg nañu ay plainte yu ñu annoncé damay bañ nag mu nekk une affaire dans l' affaire ñu lëmbal affaire yi mu mel ni cassette bu lëj ndax su ngeen fàttalikoo saa yu ñu bëggee muur scandale dañu ubbi instruction wala dañ naan procureur autosaisiru na ana 6 000 milliards ba procureur génnee def déclaration ba naan ku bëgg a déclarer na ñoo fan la mujje ana 1000 milliards Covid yi ana 94 milliards yu Mamour yi ana ana ana ana ana ana Prodac 29 milliards yi fu mu mujj mën nga koy liste fii ba ngoon doo pare te chaque fois buñ ne la procureur ubbi autosaisir na wala ubbi nañ ci instruction rek mooy mbir ma moom ndax saay na moo tax ma jàpp ne ah sénégalais yi nag. ñoom ñoo mën a fajal seen bopp seen mbir ndax nee nañu mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam su loolu weesoo nag ah ñu wax ni euh, lii nga xam ne mooy alikalaj gi maanaam lii xew suba c'est extrêmement important parce que xam ngeen ne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 waaye amul solo li ëpp solo mooy boobu dañoo moy comme ni ma koy faral di waxee léegi nag cour suprême ginnaaw bi mu xamee ni ci li li nga xam ne ñépp gis nañ ko juge si fay dafa décider ci àqu laa te loolu rek lañuy ñuy ñaan ñun laajuñu ku ñu faral ndax xam na ne fu ñu wax yoon ñu am fa dëgg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 ndax dem ñu bindal la yomb na yaakaar naa PSE mu ngi fi waaye noo koy defee ak foo jëlee la nga koy defee te doo leb ba gàtt loolu mooy li am solo donc mbokk yi euh, loolu lañ ne woon dinañ leen ko indil ci gàttal euh, di wax ne aussi wax dëgg yàlla mu ngi jaajëfal mbooleem sénégalais yi waaye mbooleem patriotes yi ndax nañ ñi koy seeti ñu ngi koy wax ah lii nga xamante ne nii moom la ñu gis ci biti ci engouement bi ñépp nag engagé wu ci jiital ci nag waa Lacos ñépp wane ne ah projet bi moo tiim ñépp moo tiim suñuy jëm te xam nañu ne président Ousmane Sonko subaak ngoon guddeeg bëccëg ci projet bi lay dox te du mës a def loo xam ni day fakkatal waxuma sax gantal projet bi waaye da koy fakkatal moo tax it relation confiance boobu am entre ñun ak moom yàlla dogal na relation boobu moo am entre moom ak askan wi am entre askan wi ak ñun ndax askan wi ku ñu xool ci ñun président Sonko la ñuy gis te loolu dafa nekk lu am solo moo tax muy jaajëfal askan wi di wax ni na ñi ñi jëm jëli seen carte yi loolu tamit wax nañu ko parce que carte ya nekk foofa di nelaw dañu bëri te bu ñu bëggee élection yi jeex dès le premier tour na ñëpp daw dem jëli seeni carte daas fanaanal fas yéene naa wote ji beneen bi nga xamante ne nii aussi wax na ko mooy nañu vigilant ndax bête blessée lañu amal affaire de xam nga li gën a métti mooy nga gis sa défaite te dema ko ak càcc rek nga mën a waajal te li ñu mën a gé musal ci càcc mooy fexe ba fa ñu waññee xob ya sa ñu am fa ñu am fa benn wala ñaari nit quinze mille vingt cinq ou plus bureau de vote yëpp ñu am fa des représentants et des remplaçants de ces représentants nga xam ne ñu bëggee def nii rek ñu ne la xëy tegal day leer nañ bu ñu ko defee premier tour bi dafay leer nañ ndax askan wi pare na donc vigilance boobu. 10 waaw 10 heures am na ñu ne sax balaa ñuy ndékki mais li am solo mooy nañu fexe ba voter massivement mais sécuriser la vote bu ñu voter rek dem nañ ko sécuriser ba mu leer taxaw foofu ku fa bëgg indi transfert wala dara ñenn ko du ci daal loolu c'est extrêmement important pour ñu def ko. ndax nag 2024 c'est un tournant décisif te bés bu ñu rëccee lii dem ci gaal yi gis ngeen ko su boobaa euh, lu ko lu ko lu ko raw di ngeen ko gis parce que nag Sénégal gii kii nga xam ne toogagut commencé ñoo jaay bu ñu bàyyee ba mu toog moom euh, euh, yaakaar naa ni musiba du ko ëpp donc mbokk yi loolu lañ ne woon dinañ ko euh, partager ak yéen euh, di leen sant bu baax a baax